ba yàq liggéey bi waaw. Allez, t'es bon. Ah, bon. T'es bon. Et vous, t'es dit, on me dit. Oui, moi. Balla Gaye noonu si baa ngi noonu Balla ànd ak Cheikh Mbacke. waaw ah, ànd ak Cheikh Mbacke le PDG. le PDG Cheikh Mbacke. waaw ah. Cheikh Mbacke Diop. Cheikh Mbacke Diop. ngi noonu. Balla Gaye ngi noonu.

direct tu check tu check empereur baa ngi nii li ma ko ci xam mooy da ngaa toog fii ba ci yàgg nga yooru dem. Balla Gaye foo ko jëlee ji woon. aéroport nga ko jëlee ji woon wala këram nga ko jëlee ji woon. wala albuquerque nga ko jëlee woon far nga jëlee. bu leen dugal waay bu leen dugal waay. organisé waay. non mais organisé na jant. ak ma dugg ci sama moom. dama kaay jël fi ma ñëw jël fi ma ñëw. foo ko jëlee ji. pour mu gisante ak jàmm yàlla. macha allah nan nga gisee sama. waa sant. sant bu wér rek comme ni ñu ko faral di yàgg a defee rek woo jaamu yàlla yi. waaw non non jarul ñu ko waaw comme moom daal di sant bu baax la. waaw non mën kay def moom. mais sëñ Mbacke sëñ Mbacke daan nañ gis Balla Gaye bu daan safar yori këll bu takk ndig topp tali tey la presse ñëpp topp di ko xaar Balla Gaye toog xaar dafa na jël ci këll bi laxasaay ndig li dem topp tali bi oh, presse xam nga bis bu nekk rek nag la mu laaj bis bu nekk ak la mu laaj tey lu mu tey lu mu laaj moom li ko ci ëppal solo mooy rendi nag yi xaalis bernde bernde yi jox jàmm nit ñi añ nañ te nit ñi danañ reer naan nañ boisson naan ndox loolu moo ci ëpp Balla Gaye def na ko l'essentiel waaw ci kàttanu sunu ah yow am murid du toll ni ñun ñun tey bu ñu safaree ba pare jàppale seen ndam lu ñu jiitu safar gi suñ paree takku jóg rek dem Touba kontaan ana Balla ana Balla ana Balla Balla ngi wàcc organisé rek arrière ana Balla xandu la waay ndax comment comment léegi barke yàlla amatul kooku moom. barke yàlla amatul ci kanam fii la toog téléphone loxo bi tuuti kaca la bëre waay kàll daan na mooy Balla Gaye Balla Gaye moom meeg contrat coow li bëri waaye li ma gën a nekk ci moom xol xol ba daan na li li li jëm ci empereur la ñëw waaye. amal wax ju bari. ñu soxal contrat. waaye contrat ba jeexee. ma waxaat ko encore une fois mu gàddu ay sac. mbaa mu gàddu ay enveloppe gën a bëgg laa teral. kooku mooy li ñu en plus ba wàccee kooku bu ñëwee. la presse nationale et internationale dana yëngu. ويقول اسمه رزا xam nga xam nga xam nga lii lépp boo gisee xam ni Sénégal journaliste yi dañoo bëgg liggéey mais dañoo xam liggéey gis nga fi mu toll nii Balla Gaye fu mën a nekk tey bu duggee géej waaye xale yi ndax li ko def mooy professionnalisme dafa am solo te ki koy jëm ak lu mën lu gën Balla Gaye gi ci biir ñu jël ko la muy def nag man wóorul xaw ma waaye daal dañu ko am na lii lépp boo gisee xam ni Sénégal journaliste yi dañoo bëgg liggéey mais dañoo xam liggéey gis nga fi mu toll nii a nekk tey bu duggee géej waaye xam ni ndax li ko def mooy professionnalisme dafa am solo te ki koy jëm ak a gën Balla Gaye gi ci dugg ñu la muy def nag man wóoru xaw ma waaye daal dama bëgg xam Balla génnal Balla Gaye noonu si Balla Gaye noonu noonu Balla Ngok champion baa ngi noonu Balla Gaye Terminado de que ya vaya. ànd ak Cheikh Mbacke. waaw ah, ànd ak Cheikh Mbacke le PDG. le PDG Cheikh Mbacke. waaw Cheikh noonu. noonu. moo ngi waaj a génn. Balla Cheikh Mbacke Ngop. Balla Gaye toog xaar bu ne te bi. naka saa yi ndigg li dem topp tali bi. Oh, nañ arrière tool yi waay ko nekk rek nag la mu laaj. bis bu nekk ak la mu laaj tey lu ma tey lu ma laaj moom li ko ci nag yi. al bernde bernde na ko. c'est l'essentiel. mais li ngeen ko jugee Ila Touba. waaw ci kàttanu sëñ bi ah yow am murid du ba pare jàppale seen gàmmu bu ñu safar bi suñ paree takk jóg rek dem Tuuba kontaan ana Balla ana Balla ah, ana Balla ana